gëm ni àjjuma bu jot euh, dañu ci ànd ak Marianne Siva jóob tey euh, dañuy ñëw euh, ci yenn ci ay xeetu gëm-gëm yu ñu am ci seex ñuy faral di wax naan seexu yàlla yi mm-hmm. seexu yàlla Pape ni nga ko waxee dëgg la waaye mu nuyoo rek sànq nuyoo ma dama jékki-jékki rek. nuyoo ba mu neex <laughs> waaw. Euh, ma lay nuyu Pape di nuyu ñi ma toogal ci plateau bi yëpp euh, di leen ziar également ci àjjuma ji di wax ni ni nga ko waxee dëgg la tey gëm-gëm dañu fas yéene ñëw ci wàllu seex seex nag nekk loo xamante ne euh, bëri na waajur yoo xamante ne dañuy ñaan yàlla am ko. Mm-hmm. liñ ciy wax nag bëri na ndax dañuy faral di wax ni ay seex soo ko bëggee koy doonante bëri na itam li ñuy wax ci ay seex waaye laataa ñuy développé rek mm-hmm. Pape ñu dem xool élément bi ñu dellu si ci plateau bi. dañuy xëy dëpp la waaye mu jumbo dañuy ko ci ñaari waajur tolloo taxawaay ndiroo waxin ak doxin looloo dal barxam Mamour ak barxam Insa ñii di ay seex di kéemtaanu suñu boroom seex nag doon lu bari façon. seex mooy ñaari doom yu ñëwandoo lu mu ñaari doom yu ñëwandoo léeg-léeg ñuy góor léeg-léeg ñuy jigéen léeg-léeg ñu ñëw nekk góor goo xam ne ku ci nekk àndaale nga ak jigéen. bu weesoo bayre bi nga xam ni moo leen di topp bëri na itam lu ñuy wax ci seex. lu ko yàlla may itam il faut nga nangu euh, nga mën na muñ surtout ndax dafay métti des kii day feebar tey day tane rek keneen ki jël. mais nag xéewal la nag xéewal gu bëree bëree bëri ci ne man moom xam naa ci dara. dañoo am sunu ay réalité mu am yu bari yoo xam ne soo xasee nekk yaay seex dañ la koy tere. yaayu seex dafa war a gàtt tànk yaayu seex waru sol lii yaayu seex dafa war a di musuur yaayu seex yaayu seex de telle sorte que yow bu dee danga nekk xale nga am ay seex déjà la fekk rek nga yor ñaari xale war leen yor dafa métti donc suñ si boolewaatee teg la yeewu pression dafay nekk lu gën a diis. des fois ni dalay fekk sa kër nga toog mu ñëw dugg si ne sëriñ moo a yebal ne ma sarax ku am ay seex mu ñëw di la jox sarax bi des fois day nekk xam ne doo ko mën a bañ a jël. mais jël boobu ngay jël sarax yi aussi lu ne nga siy dajal. aada di léebu naan ay seex soo leen amee ñu feebar faw ngay yelwaan di leen jox soo bëggee ñu tane di mbir mu yaayu seex bi la di dëggal. sarax bi dañ naan la boo ko jotee bu dee ceeb la dama koy suum bi comme man ñi ma yor ay liir lañ dama koy suum bi ba ndox bi ci kaw lay dindi comme moom rek lañ mën naan ma def ko ci biberon jox leen ko ñu nàmp ko euh, des faw aussi xaas bi mu koy jël dindee ko meew jox leen ko ñu nàmp ko. dinañ tane Marianne xam nga nit gëm pour man gëm-gëm bi rek mën na sa faj xale yi parce que des fois aussi comme yaay nga jaaxle bu ñu la joxee sarax yooyu ñu tegtal la nga def li nga def nga gis si tane aussi mais tam des fois aussi nga def ko continuer gis ne xale bi yaram bi mu ngi tàng ñu ne la ngay dem aussi nga dem ci juróom-ñaari kër nga yelwaan fa ndox nga sangee leen ko mais xam nga yaay moom bu yoree doom yu jaaxle yu feebar day daal di jaaxle donc fekk ce qui fait luñ ko nee rek baax na pour doomam yi da koy def. waaye borom xam bi lee àndul ci boobule façon. yalwaan yalwaan du faj kenn saraxe moom moom mooy faj di yokk fan di yokk wërsëg ci saraxe gu yàlla tax bu fekkee ne ku seex da nga yalwaan seex jigut kenn kon yàlla bu kenn seexati man loolu laay wax bu ko defee nag seexa ngoog kenn du ko yalwaan lislaam moo ko ci sunu aada nag am na nit nag bu gëmoon ne bu ma bu sama bopp bi métti bu ma mbëkkee garab gi wér nun ñëpp gëm ko ba kay dem yàlla mun nañu ci fekk wala seetaane boo ma wér waaye taxul bu baax ab seex kenn du ko yalwaan dañ koy nag dinaa ko def n'empêche que su ma demee aussi def yalwaan ba pare damay dem ci docteur aussi. seex nag dañuy faral di wax ni day topp ñaare ñu koy am boo xoolee seen famille du ci ñàkk. sama seex mu donc euh, euh, defe naa ay seex moom la ñëpp di ñaan. waaw moom la ñëpp di ñaan pap mais dama bëgg également gërëm pap euh, ñi nga xamante ne ñoom laa jël ci vidéo bi parce que bi may def reportage bi pap dafa metti woon. Hmm. ndax damay ànd ak Xaadim Siise ñu wër ba sonn dañuy gis nañ kër yu bëri yu am ay seex mais suñu xamee ni da leen bëgg jël en vidéo du ñu nangu nga filme leen donc dama obligé jël ay seex yoo xam ne si sama famille lañ bokk muy ñoom Barxam Mamour ak Barxam Insa maa ngi gërëm seen yaay bu baax mm-hmm. ak Mbiru ak Demba Ndaw mi nga xam ne ci kër gi la ñuy liggéeyee mm-hmm. dama insister ba sonn pour ñu jàppale ma parce que vraiment bëgguñu woon ñu ñu filmer leen waaw gis nga Pape am na ci koo xamante ne ñett ñett la am waaw Kalsi sax daf ma diggoon ne ma dina ma ah, jox ay seexam mais finalement xaar naa ba sonn joxuma fatay Ibu Kan euh, ay triplé waaw ay triplé la am waaw gis nga loolu muy kéemtaanu yàlla <laughs> waaw gis nga Pape waa di wax ni rek Pape <laughs> suñu ñëwee déjà science déjà lu muy wax ci seex euh. day fay faral di wax ni seex euh, mu ngi jugee si dañuy wax ni que góor ak jigéen suñuy sëy mhm. euh, dafay am ay junni junni maniw yoo xamante ne ñooy jugee si ku góor ki mais benn rek moo ciy baax waru dugg ci ovule ku jigéen waaw léegi mu ne nag su su fekkee nag des fois nee na ñaar dina rëcc dugg bu boobaa si la ñuy am ay seex su ñetti duggee ñu am ay triple ainsi de suite mais di wax nii rek pap seex li tax mu kéemaane seex dafa nekk loo xamante ne ñoo njëkk ci àdduna dañuy faral di wax doomu aadama ndax ñun ñëpp ñu ngi jóge ci aadama ak awa léegi nag ñoom euh, ñu ngi amoon ñaar fukki ëmb ëmb yi nga xamante ne moom lañ def ñaar fukki yëpp benn rek moo ci nekk bu tóol sinon la reste yëpp ay seex la góor ak jigéen Euh, ñu bëri dañuy yaakaar ne Ousseynou ak Assane ñooy nekkoon seex yu njëkk yi mais seex yi nga xamante ne ñoo njëkk ci àdduna ñuy tuddoon xaabil ak laabuda ñi xaabil ak laabuda ak xaabil ak ki nga xamante ne moo di itlaax mooy ñeentu seex yooyu ñoo xamante ne ñoo njëkk ci àdduna te ñoom ñu ngi nekkoon benn góor ak benn jigéen mm. foofu la seex jóge pap seex nag euh, bëri na ñu ko ñoo xamante ne dañ ko bëgg comme ni ma ko waxee sànq ndax dañuy wax ni que seex dafa nekk loo xamante ne xéewal la mm. seex dañuy wax ni que euh, tout tout le temps nit yi dañuy laaj kan moo mag ci seex yi mm. euh, aada ne seex ñi nga xamante ne ñoo si mag mooy ki nga xamante ne mu mujjee juddu parce que dañ naan moom mi mujjee juddu moo mag mag mooy yónni rakk dafay yónni rakk bi ne ko demal nga xool àdduna ci li ñu wax su neexee après man ma daal di ñëw ñu ne loolu lay wax moo tax ngay gis euh, hôpital soo demee ñu naan la seex yi dañu rawante une minute ñi naan la deux minutes ñi naan la quatre minutes mm-hmm. léegi ñu ne seex nag euh, bu fekkee seex yi dañoo feebar mm-hmm. am na ñu ne da ngay dem yalwaanal leen soo demee yalwaanal leen liñ la jox ci sarax bi nga togg ko jox leen ko ñu lekk des fois nag kenn feebar keneen du feebar léeg nga gis seex kii lakk kee du lakk ñu ne la su kenn ki lakkee yow bul xaar keneen ki lakk aada mu ne la lakkal keneen ki loolu la ñuy wax ñu ne la euh, bu fekkee mënoo dem si si ay kër tamit euh, nga yalwaanal leen ñu ne da ngay ñaan mën nga dem si set kër aussi nga ñaan ku si nekk potu ndox cette maison ku nekk jox la potu ndox nga sangee ko seex yi ñu ne loolu mooy ñoom seen ay gàllaaj ñu ne seex itam su kenn feebaree keneen ki feebaru da ngay jël ki nga xamante ne moom la dara jotul mu jël yéreem mu échanger ko ak beneen seex bi mu sol ko ki feebar jël yéreem jox ko keneen ki ñuy wax ni su fekkee danga am tamit aajo paap aajo bi nga bëgg mu faju da ngay bëggal yaayu seex wala nga bégal ay seex. Mm-hmm. loolu itam aada dañ koy faral di wax. Mm-hmm. Euh, ñu ne ay seex pour nga am ko il faut famille bi. kenn am seex mm-hmm. dañuy tere tamit ay seex ñu nduroowee trop. ngay génn di ànd ak ñoom. mag ñi dañoo mës a ragal cat. waaw dañ ko mës a ragal te loolu depuis temps yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la parce que Ousseynou ak Assane. Euh, ay sëtam la ñu woon Seydina Aliou moo leen jur ak Fatimatu bintu Rasoul ay sëtam leen yonent bi bëggoon leen trop un jour dafa toog si jàkka ji Ousseynou ak Assane dégg ni moom sallallahu alayhi wa mu ngi ci jàkka ji ñuy dem di ko seeti mais yonent bi bi mu leen séenee rek sallallahu alayhi wa dafa jug jël Assane ne ko demal nga jaar si côté fi imam di jaaree ne nu demal ci euh, kii bi ngay njëkk jot sàppe bi ngay njëkk jot taxawal foofu bi ñu paree muy génn jàkka ji daal di ànd ak ñoom ku ci nekk mu jàpp sa loxo ne leen bu ëllëgee bu leen génnati yéen kese soo leen di ñëwati si mbooloo bu leen àndandoo soit nag kii njëkk dem wala kële mujjee dem pour loolu yëpp lim ci jublu woon mooy cat am na nag ñu ne taarix boobu la la ñu jëlaat fii ci suñu réew euh, ndox bi ñuy wër ci kër yi di leen ñaanal ñu ne foofu lañ ko jëlee. d'accord parce que ndox day tojal et ñu mm. bari loolu la ñu wax. d'accord ci xalaat. Mm-hmm. waaw am na ñu wax loolu mais am na jiitu na loolu. ndax nag euh, lislaam mu ngi fi ñëw neuvième siècle. premier siècle ba neuvième siècle am na lu ñu doon dund. dëgg donc nit ñi jours dañu bëgg a yamale taarixu Sénégal ci taarixu l'islam. bëgg a yamale taarixu Afrique ci rek comme tubaab bi ni mu defoon bi mu ñëwee ne yéen amu leen dara table rase la dama leen di christianiser. pour ngeen am ruu. yàq suñu lépp voilà donc li Marianne wax yëpp. ci taarix la ko teg. Euh, mais comme lu may confirmer man mii ci dama nekk ci famille buy am ay seex. sama yaay caatam bu góor Assane maa ngi koy ngi Kër Massar Assane Gueye. seex la te amoon na yeneen seex. si effectivement damay dëggal. que ne cosaan mag ñi. ñi nga xam ne dañ doon am sax waaye bu xale yi daan feebar dañuy def ñaari kër ñetti kër luñ fa am ñu toggal leen ko toroxloo ko. dëgg la jox leen ko. Euh, dafa am ñaari cas pour pour nga xam ne Cheikh dafa doy waar. am na ñaari dëkk man yoo xam ne dañ ma marqué. benn dëkk bi mu ngi Inde. mi ngi tudd euh, Kidinji. dëkk boobu am na lu ëpp juróomi téeméeri seex. c'est-à-dire kër goo dugg. am na seex. maanaam ña fay juddu ci ay seex dafa ëpp. dem nañ sax bay gëstu ne est du dëkk bi. am na beneen ville bu nekk France bu tudd Plecaduc Plecaduc at mu jot sax dana am euh, lu mat junni ak juróom-ñetti téeméeri seex yu fay daje. dañ ko def sa ñoom festival. léegi nag dem nañ ba gëstu ne lu tax dëkk booba ñu fay juddu di di am ay seex ndax ndox mi la ndax lekk gi la. Hmm. mais ci cosaan seex dafa nekkoon kéemaan. Hmm. moo tax yenn dëkku Afrique yi seex bu fa juddoo dañ ko daan jël sànni ko. parce que dañ naan du nitu neen. dañ daan jaaxle ñaar ñëw ñenn ñi dañ ko daan rey. dëgg la dañ am na ñoo xam leen daan rey. am na ñoo xam ne. dañ leen daan sàcc. ndax dañu ne seex kéemaan la goo xam ne bu nekkee sa biir kër am na lu mu lay waaye bu nekkee ci dëkk bi am na am na lu mu lay indi am na benn téere bu ma ci bind bu tudd sacré jumelle bu war a sax génn parce que euh, question bi mooy euh, lan moo tax lan moo tax nit ñi jàpp ñu ne Pape Cheikh ak taawu taawu famille am mhm. ay seex lañ ndax ñaar nit ñu juddoondoo ci benn waxtu amul mhm. bu doon benn minute wala ñaari minute danañ ko rawante mm. te ñoo bokk ndey ak baay ñu tuddee leen seex mm. waaye léegi bu ñu rawantee ñeenti at lu tax leen wax ay seex ndax ñoo bokk ndey ak baay mm-hmm. donc bi mooy déggoo wax ji comme ñoom dañoo rawantee ay minute mm-hmm. bokk ndey ak mm-hmm. tax ñu tuddee leen seex waaye léegi ñun bu ñu rawantee juróomi at tamit kon nañ jàpp ne ay seex lañ parce que ñoo bokk ndey ak baay bokk bokk fu ñu juddoo mais kéemaan bi mooy euh, tegloo bi ni muy gaawee ci benn ëmb bi dañ ne ëmb kumpa la mhm. ku imbi feeñ waaye nag dékkaan la mhm. donc ci suñ cosaan daal nañ jàpp ne seex ñun fii ci Afrique de l'Ouest ngëneel la ci Afrique centrale nag am na fa foo xam ne seex musiba la mhm. dañ koy rey ak di ko bu bundoxataal ak di ko jël di ko defee ay xërëm mais daal luñ ci mënti jàpp man duma dàq seex bu feebaree ñuy yalwaanal ko. Mhm. jox ko mu lekk ndax sama bu jigéen. Mhm. daf ko am ñaari yoon yàlla na ko yàlla xaare àjjana. te doon naa gis mu koy def te doon naa gisit bu ko defee mu jur njëriñ. mu am njëriñ dëgg la dëgg la dëgg xam nga xam nga Ousseynou Assane. ñu bari ñu yaakaar ni ay seex la ñoo juddoondoo mais ay tofaloo. dañoo mhm. toppante Assane. magee na Ousseynou 6 maanaam loolu ci loolu dafa feeñ ci kiimtaanu borom bi subhanahu wa taala xasan xasan moo njëkk a judd seen àll yàlla ne ko euh, yonentu bi àll ñëw ne ni mu koy tuddee mooy xar mooy mooy xare la koy tuddee mhm. yonentu ne ko dee xasan mooy lu rafet ñu toog 6 mois Seydina Ousseynou ñëw mhm. ñu tuddee ko Xuseynu mhm. léegi ku amati seex nga ne nañ ko dippee Xasan ak Xuseynu waaw mais ñoom ñaar ah bokkuñu benn bis bu ñu juddoo Xasan magee na Ousseynou juróom benn weer ci li borom xam-xam yëpp d'accord mm-hmm. mais Xasan moo mag Sidna Ousseynou juróom benn weer mais comme li Marianne indi nii xam nga suñu réew mi day réew moo xam ni réew mu baax la mm-hmm. day réew moo xam ni mm-hmm. mag ñi ko dëkkee woon dañu dañu comprendre yàlla mag ñi ko dëkkee woon dañu lu ñu teg rek ko teg lu ñu wax lu ñu wax am na lu ñu ko teg am am na fuñ ko teg xam nga génnal nga dem yalwaane leen léegi foofu ña ngay ña ngay ña ngay toj sa xol yow mi nga xam ne am nga dépense ba noppi gàddu say seex ah pour dem pour dem parce que ay seex seex moom richesse la richesse la seex comme ni nga ko waxee Pape euh, richesse la mais mag ñi dañoo fonkoon seex mhm. ku mel ni Serigne Touba euh, Serigne mbay Jaxate dafay nettali ci ay waxtaanam ni Serigne Touba amoon na ay seex yoo xam ni seen papa taalibeem la woon mhm. mu ne Serigne Touba da leen fonkoon ñu ngi tuddoon Abdou Samad mais su ma juumulee taw maani la leen doon wooyee. noo la leen daan wooyee ba pare. Euh, taw maani xam nga ci arab mooy ay seex. waaw taw maani loolu comme ni nga ne ay seex rek. waaw boo taw maani mooy ay seex. comme nga ni ay seex. Mhm. taw maani mooy ay seex. faral di gis par exemple su fekkee Ousseynou ak Assane dañu nduroo trop trop trop ba mënoo leen xàmmee. koo si njëkk gis da ko naan seex bi pour bañ ah. xam nga olof day def loolu koo njëkk gis ne ko seex bi ah. xam naa looloo taxoon sëriñ doon leen wax voilà ah, léegi nag ah. euh, ñoom dañ daan ñëw di fréquenter tout le temps sëriñ bi euh, ndax benn jour sax mu ngi wéeru ci benn garab mu ngi wax ni que seex yi dañoo demoon ba mu màgg ku ci nekk am soxna mm-hmm. ñu ñëw sëriñ Tuubaa naan yéen de yéen ak may fàttali ni maa ngi jëm mag ndax fii laa leen tuddee woon ci garab bi te bi ñu ñëwee di ko présenter seen soxna yi ñu ngi dem ba garab bi mu ngi nekk mag ba ñu ngi ciy wéeru mm-hmm. di wax ni ku ku fonkoon seex la dafa daan wax ni sax boo mayee kii dara mm-hmm. na nga may keneen ki pour bañ mu am genre discrimination waaw et puis damay dëggal li Marianne wax ci wërsëg bi mhm. dafa am benn femme bu nekk États-Unis mhm. euh, moom ay ta ay mbokkam inde mhm. kii lañ chinoise lañ mais moo jëkkër dañu woon benn doom la ñu am ndax doom dafa dafa diis États-Unis ndax yor ko dafa diis yàlla dogal ci benn ëmb bi mu ëmb juróom-ñaari doom eh. ñu ñëw def écho gis juróom-ñaar yi ne ko léegi dañuy wàññi juróom benn yi ndaw si ne déedéet man mënumaa wàññi kenn ñëpp laa bëgg mook jëkkër ji ñu jaaxle keroog bi ñu juddoo ñu def ko ci télé américaine li may ko Amérique may seetaan bi ñu ko juddoo ñu def ko ci télé américaine bi ñu defee bi ñu juddoo rek ñu publier ko don yi bi ñu ko calculer matoon na presque 3 à 4 millions de dollars. macha allah. c'est-à-dire que gone yi avant ñuy am weer kenn ku ne nekk na millionnaire. Mhm. ci te judd ci ñu soog a judd. ci ku ne woon benn doom laay am man ko da ngaa juum da ngaa waroon benn ëmb laa bëgg. Mhm. ndax benn ëmb xamoo et puis mag ñi sax dañu jàngal ni doom bu ciy ñëw ak wërsëgam. dëgg ah. la dëgg la doom day ñëw ak wërsëgam. Mhm. yenn saa yi sa soxna nekk nekk nekk jigéen jigéen wérul euh, nga nga nga baax ko lool. xale bi bu ñëwee rek. am lu mu ëndaale. gone mooy ngénte boppam. voilà gone mooy ngénte boppam. gone mooy ngénte boppam xanaa xamoo li ngay am bisu ngénte euh, bu fekkee da ngaa jàpp ne sa wërsëg la muuso ndax am na ku la jox te yaa ko ëppale dëgg la waaye gore gi loola daf ko waroon a lekk mm. loolu muy wërsëgam mm-hmm. moo tax mag ñi dañ doon def ne euh, dañ naan la bu sa jigéen bu sa jabar duggee néeg nga mm-hmm. génn nekk dëgg la waaye bésu ngénte ba ñu ne ngenteew mhm. ngenteew moo indi ngénte ah, ngenteew ngenteew ok am na ñoo xam ne nag du ñu def génn nekk mhm. abandon de domicile la ñuy def <laughs> waaw mooy la waa ji defoon dem ci sëñ Abdoulaat yàlla yàlla yokk leeram <laughs> ci ni ko mag ñi nettalee dem ci sëñ Abdoulaat am doom ne ko ne ko ne ko ngénte li damaa bett ci ni ko mag ñi nettalee ci taarix bàyyi laa téye ko fa ci ni ko mag ñi nettalee bu fekkente ne amul nañ ma baal euh. waaye niñ ma ko nettalee man te maa ngi dégg te di ko weddi mm-hmm. nee nañ da ko rek taxanloo mm-hmm. bu taxanee rek mu teg matt mi mu taxanee mu teg ba bis mu ne ko yéeneel ma ko boo defoon li bu fekkente lam ko wax ne ko boo dëkkoo woon lii keroog ba sa jabar wane lor ba léegi di nga ko ngénte moom doom du bett kenn waaye mm-hmm. seex daan na bette ci jamono yi échographie amuloon waaye tey nag defe naa nit ñi dañ koy dara dootul bett waaw waaye daal moom man daal defe naa ne Cheikh xanaa bànneex rek a ci war a nekk. pour tëj rek Pape Cheikh euh, di wax ni rek euh, comme ni ñu koy waxee fii suñu aadala ñu nekk euh, ku am Cheikh ñu ne da ngay dem ci ay kër yi di ko yalwaanal mais di wax ni tam même su seen yaram tàngee nga bëgg leen dem yalwaanal tamit bu ñu fàtte hôpital bi tamit am na ci solo. Mhm. yalwaan bi am na ñu ko gëm am na ñu ko gëmul waaye di wax ni rek sallallahu alayhi wa nee na loxo bi nga xam ni mooy joxe mhm. moo gën loxo bi nga xamante ne moo di tàllal. Euh, mbokk yi liggéey ci télé bi te am ay seex Keps Thiam euh, ay seex la am ah Keps am na ay seex Betty ak Marianne euh, abukan moom wax nañ ko sax waaw ibukan ay triplé waaw ibukan moom ñett la ci am waaw ak Kalz <laughs> ak Demba Ndaw Paap ak Demba ma leen di gërëm ñoom comme ni ma ko waxee sànq parce que yombul woon daal ma am yaayu seex wala papay seex bu nangu wax ci kanam caméra bi waaw ñi ay turandoo Cheikh Ibrahima lañ ñoom mm. barxaam waaw may gërëm seen yaay tamit mami Diallo bu baax pap moom daf ci waaw yombalal nañu ko bu baax. mu ngoog ñu ngi lay gërëm bu baax Marianne ci gëm-gëm tey ñu ñëwoon ci euh, seexu yàlla yi.